di ci teg eh, kilifa jataay bi eh, Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Serigne Chouaïbou di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi liggéey bi mu bëgg a liggéeyal Serigne bi sax borom defal ko ci tawfeex ak ndam lu yaatoo yaatu ci barke borom Tuubaa di siyaar kilifa yi fi nekk yëpp rek waaye di liggéey boobu tamit di ko tegaat ci loxol Serigne Samb ak Serigne Dramé ak mboolem ñi saytu liggéey bi tey yi nekk ñu fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yi. muy nga xamante ni moom lañuy wax sëriñ Modou Astou Touré di jàmbaar lool waaye nag ci fànn bi nga xamante ni mel na ni kenn ku ci nekk mi ngi ubbi ay gëtëm di ko déglu muy fàllu fànnu séentu aw weer ndax ku ne xam na ni jamono dafa toll foo xamante ni xam-xam yu bees yi génne la lu nekk mel na nag suñu borom may na ko ci ak ubbi ndax comme que xadis daf ñoo jàngaloon ni bu ngeen dee woor dee leen séntu weer wi waaye bu ngeen dee dog tamit dee leen séntu weer wi suumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi kon loolu moom moo tax ñu fas yéene koo dalal mu wax ñu daal weer wi nga xamante ni tey la benn fan bi ñu tey la ñuy séntu weer wi ngir war a séntu weeru korite su ko defee ak ndax bët dina ci mën a tege ak bët su ci mënta tege tamit pexe yi nga xamante ni am na ñu génne ko muy ay xam-xam yees yooyu yëpp mu leeral ñu ko kon sëñ Mor Asta noo ngi lay ziar di daral ci liggéey bi bismillah bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee sunu borom siyaare mbokk yëpp ñu dugg ak yéen ci waxtaan wi ci wàllu weer wi tey ji nga xam ne mooy ñaar fukki fan ci weeru avril 2023 di ñaar fan ak juróom ñeent ci weeru koor 1444 di bisub alxames di juróom ñaari fan ci weeru biir di fanweeri fan ak benn ci burjul la bi at mi tàmbalee ak léegi ca 31 solet ca dimaas ja ak fii ñuy wax yéen muy 20 avril doonoon benn fanu dimaas ca tamxarit ba ak léegi mu nekk deux cent soixante suur maanaa ñaar téeméeri fan ak juróom benn fukki fan ak ñeent deux cent soixante quatre suur mu doon tey séntu bu njëkk ñu war ko séntu ci àdduna bi yépp ba mu des ñaari réew yoo xam ne ñoom tey du seen séntu bu njëkk suba ci 21 moo nekk seen séntu bu njëkk muy fi mel ne Inde ak fu mel ne Bangladesh ndax ñoom rek ñoo wóorandoo wut kon tey séntu bu njëkk ci àdduna bi yépp waaye li ci am solo ba am solo mooy weer wi tey ci àdduna bi kenn du ko mën a gis ak bët direct kenn du ko mën a gis ak bët direct loolu mooy li wér mooy li nga xam ne ñëpp kenn amu ci wuute tey moom kenn du taxaw ne weer waa ngi ne ak bët kon foofu moom ñiy sukkandiku ci ni charia di jàngalee ci saxal weer ak dàq weer tamit dañ daal di am ci lu wér ci ne weer yi mënta feeñ tey mu des nag ndax mënees na koo gis ci jumtukaay yi ñu xoole wala déet foofu tamit li nga xam ne moom la fi astoronom nangu jàngale ko fi te boroom xam-xam yi ëpp ci wàllu astronome d'accord ci moo di ne bu fekkente ne benn tappale dugg ci senegal lañ jàpp ne warees nag fee mën a gis ak appareil ci appareil yu xóot yooyu ba mu des benn appareil nag ñu koy tuddee euh, CCD mooy LCCD caméra boobu moom jàpp nañ sax boo ko yoree ci réewi naar yi mën naa nekk waaye bu dee ci xool télescope kese rek nga xam ne télescope bi branché wuñ ko fenn dafay xëcc rek nga di ngay gis bu amee benn barab buñ ko mën a gisee te lii ma wax nii ñaar fukki boroomi xam-xam ak juróom yu yëngu ci wàllu astronomie saxal nañ ko saxal nañ ci lu wér ci ne senegal képp fi lañ ko war a mën a gisee ak loolu boroom xam-xam yooyu danaa tudd ku mel ni oustaz Ibrahim Jarvan moom moo jiite mbootaay gi yor wàllu astronomie fële ca Imaratul Arabiya oustaz docteur Elyas Mohamed moom moo nekk vice président ci wàllu banqaas bii di jàngal wàllu technologie ak mbirum jaww ji ak fëlëg ca Imarat ba tey ca université ba ñu tuddee jaamiatu shariqa oustaz Basmas Diab kooku ba moo yor wàllu kuréel gi yor wàllu fëlëg fële ca Jordanie fële ca Ordon ba pay nekk partenaire ci. li nga la arab maanaam ci kuréel gi nga xam moo tënk réewu arab yi yi yëngu ci wàllu fëlëg ak lépp lu ci aju moo ko jiite ab maanaam maanaam partenaire la ca oustaz docteur Jalal Diin moom tamit nekk expert ci wàllu xam-xamu sharia nekk directeur nekk ko defi directeur ci at weesu ci université bi nekk Chiri fële ca Halab oustaz docteur Jamal moom tamit nekk directeur bi jëm ci jàngat lépp loo xam ne aju na ci wàllu xam-xamu ficia fisia ak fëlek ci Constantine fële ca Algérie ak ki nga xam ne moo jiite woon groupe bii di yëngu ci wàllu fëlek ci Afrique ñu koy tuddee oustaz docteur Hassan Bilani nga xam ne xam-xam dafa jëm ci wàllu waxtu yi maanaam heure yi ak yu ñu dem ak yooyu yëpp nekkoon na tamit ingénieur ci fële ca réewum kii mi euh, may fàtte tur <coughs> maanaam ca université bi ñu tuddee jaamiatul malik saxoot ca ya docteur Khalid Abdullahi Turki nekk directeur fële ca Qatar lu jëm ci wàllu énergie ak environnement moom tamit bokk na ci ñi signé document bi wane ne Sénégal képp mooy foo xamee ne ku yor appareil notoriel mooy télescope notoriel jàpp na ne war nga foo mën a gis waaye ci lu jafe noonu yi tamit la ko Adil Saxdoon nga xam ne mu ariq la falaki la ca Kowet ñëpp xam nañ ko noonu yi la ko waxee woon maanaam ihtimaal la rek mën naa nekk mën naa ñàkk bu dee Sénégal bu dee feneen mu waxalin ko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 di leen siyaara di leen ñaanal sunu borom tawféex ak mucc di siyaara mboolem ñu nekk ci biir jotaay bi yépp di jël nuyoo ak siyaar boobu di ko teg ci loxol kilifa gi nga xam ne moo taxawal tey lii muy Cheikh Abdou Samad Mbacké di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ak tawféex di siyaara mboolem borom xam-xam yi ak mboolem suñu jëriñ ñi nekk ci biir yépp rek di fas yéene ànd ak yéen jotaay bi ci wàllu waxtaan lu jëm ci weer wi incha allahu taala Euh, kon gis ko ak bët moom mënta nekk ndax tey weer bala lañu koy mën a gis ak bët ci wàllu astronomie nii lay tëdde dafay fekk ne weer lu mu gàtt gàtt fi mu juddoo mooy fi mu liiñee ak jant bi tàmbalee bàyyi jant bi tàmbalee sori sowu jant bi ba fi jant bi so na fekk mu am fukki waxtu ak juróom-ñett ngeen gaa néew digg doomu ñaar fukki waxtu ngën ngaa baax ñaar fukki waxtu ñaar na fekk ne yëkkatiku na ci jawwu ji maanaam am na ci degré darajaat yoo xam ne àgg nañ ci set fi mu nekk ci jaww ji ak diggante fi mu so diggante ci barkas bi mu sowee centre bi mu so ak centre bi jant bi so lu mu gàtt moom tey na mat degré am na saa ñu wax neuf moo gën a wér na ko jant bi njëkk a lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt trente minutes ngeen ngaa digg doomu cinq minutes su boobaa nag bu asamaan si xiinut te amul ay niis niis bët mën na koo gis lii mooy li xam-xam jàngale ci wet googu weeru tey wii nag ci àdduna bépp surtout ci réewi arab yëpp amul ci fenn foo xam ne weer bi mu juddoo ak ba bañ koy séntu am na fukki waxtu ñett ci li gën a wér su ngeen delloo ci markasul felek ad-duwali da ngeen fa fekk document yooyu ñu jox leen réew yëpp ba mu leer amu ci benn réew bu mën a nekk boo xam ne juddug weer wi am na ndax mi ngi juddu quatre heures quinze ci heure internationale bi nga xam ne moom la ñu sukkandiku ci wàllu Greenwich bi ci euh, ligne équateur bi Sénégal képp ba tey ci wet googu tamit mooy foo xamee ne weer wi dana fa am fukki waxtu ak juróom tey loolu Sénégal képp la ci àdduna bi tey loolu tamit borom xam-xam yi d'accord nañ ci. te foo dugg fa moom nga fay fekk fekk ba tey bokk na ci li tax ñoom tey ñu wax ne nga xam ne xam-xam saxal na ne tey appareil naturel mënut gis weer yu bu fekkee mën naa nekk senegal lay doon lu tax mënu koo gis mooy tey weer bu dee réewi araab yi amu ci fenn foo xam ne weer yi am na fa fukki waxtu ñett ba noppi tamit li ko jant bi njëkk a sowee amu ci benn réew boo xam ne jant bi njëkk a weer yi mat na vingt cinq minutes ci réewi arab yi amu ci benn réew boo xamee ne degré bi weer jant bi mat na mat na cinq amu ci benn réew boo xam ne li weer wi di fi mu nekk ak fi mu war a so ci ci suuf ci gox bi mat na six degré lépp amut comme neex man ngaa vérifier euh, kon loolu moo tax borom xam-xam yi sukkandiku ci loolu te loolu kenn du ko dàq ci wàllu astronome mu des nag am na ay tappale yu bari yoo xam ne ak ay politique yu nekk ci biir weer wi kon lii la xam-xam jàngale ci wàllu weer wi weer dafa am fam bu fa tolloo maanaam bët mën na koo gis mooy yi ñu jàngale woon sànq na ko jant bi njëkk sowee trente cinq minutes wala trente minutes na weer yi am fukki waxtu juróom-ñett wala ñaar fukki waxtu wala ñaar ñaar na fekk ne weer yi am na ci leeraay lu mu gàtt gàtt. lu mu gàtt gàtt na na na mat quatre vingt zéro zéro quatre vingt dix jëm un pour cent ba un pour cent ay teg boo xasee un pour cent waxale ñu ko te weeru tey wi nag Sénégal képp la weer di am ci leeraay cinquante ba cinquante quatre zéro virgule cinquante ba zéro virgule cinquante quatre ci leeraay yeneen réew yëpp matul loolu benn réew amu ko ci àdduna tey foo xamee ne li weer di am ci leeraay dana mat cinquante pour cent. maanaam zéro virgule cinquante xuma sa un pour cent zéro virgule cinquante amul benn réew Sénégal dong la nekk ci zéro virgule cinquante zéro cinquante quatre mais yeneen réew yi arab yëpp zéro virgule vingt trente zéro virgule quarante te loolu ñëpp xam nañ ne appareil ordinateur mënu koo gis weer bu tolloo foofu benn appareil rek ko mën a gis muy eh, CCD yooyu nga xam dañ ko branché ci satellite bi nga xam ne ma sama portable bii ma yor fii tey man fii ma toog yéen man amul benn bis bu mu mënta gis weer bi ci satellite amul kon loolu moom daanaka jëru so di wax te réewi arab yi war wari suba ñoom ci appareil boobu lañu sukkandiku tey ndax tey ci Saoudia dañoo am ay réeroo ndax mbooleem gox yi ñu ko doon séentoo yëpp bañ ko séentoo ñoom dañ koo gisut ñu dem ci gox bi ñuy tuddee Soudayr ak Tumir ak Tumir fële ca seen astronomie ba nekk nga xam ne moom dafa amoon ñoom problème en 2007 waaw al euh, euh, Mouhamed Al Khudayri nga xam ne tey moom moo moom moo wax ne weer yi feeñ na gis na ko ci appareil boobu ñu ko jox xam ni ñu war nañu xam weer yi fan la saxe ci naka la saxe ndax bu dee fu mel ni Imarat fu mel ni Saxoodiya fu mel ni Égypte fu mel ni Ordun fu mel ni Tunisie fu mel ni euh, Palestine ak réew yooyu la wër yëpp ñoom suba la ñu woore ci ajuma ji waaye war na ñoo xam naka lañuy ñu naka la ñu bu dee otul moom ñoom waxoon nañ ne ñoom dañuy sukkandiku ci Arabie Saoudite bu dee weeru koor ak weeru nangam nangam waaw waaw wala neen réew bu leen gën a jege ñoom loolu lañ waxoon kon loolu moom nangu nañ leen ko am nañ ci droit euh, même biir Arabie Saoudite amul beneen gox buñ ko fa gis la gox yee bari bari bañ séentoo gox yëpp astronome yee ñu fa teg yëpp ne gisuñu weer wi ñu ne nañ toog xaar Muhammad al Xudayri yi mi nga xam ne moo nekk fële ca ñaari gox yee mooy Tumir ak Hotel Ashudayri bële ci Arabie Saoudite moom moo wax ne gis na ko ci machine bi mu yor seen machine yi tey dañ koo dañ koo teg samp ko ci ordinateur brasé ko ci internet bi loolu moom man mii sax mën naa ko génne démb sax bu ñu ma waxoon loolu ma génne weer wi dama ak bëkk démb yëpp loolu ko yor waxtu mën ngaa génne weer waaye kenn gis ko bët moom loolu tamit nit ñi xamaade loolu ndax lu ko mooy Sénégal ngoon jot nga dégg nu naan nee nañ feeñ ne Arabie Saoudite déet feeñu fa ci bët gis nañ ko fi ci am machine boo xam ne machine boobu bis yëpp mën ngaa gis weer man sama appareil bi rek yor naa ci benn satellite boo xam ne muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon bu ma mënta gis weer bi ci sama appareil bi képp kon rawat na ko yor ki yooyu machine yooyu kon tey ci àdduna moom kenn du teg weer yu ak bët léegi ne nit ñi ñooy xel ba xam lislaam lan la wax ci wàllu saxal weer ndax bu fekkee képp koo xam ne danga danga wax ne gis nga weer yu ci appareil moom doo ko leeral ci diine ji moom xuma jën jin waaye du yi ndax soo ma liru ojati yi wa aftiroo liru ojati yi ak yeneen xadis yi saa wax yëpp nga xam ne yu bare bari la ci wet googu baat yi ñu ci jëfandikoo yëpp dafay tegtale gis-gisu bët yi mu nirool yëpp tamit ci alxuraan yëpp gis-gisu bët lay tegtale kon ku bëgg a saxal ci saxal weer wii ndax kalkinu falek boobu képp ku ci sukkandiku folli sa bët danga bari weer yu ëpp ci yow bari weer yu manqué ci yow lii maa la ko wax te kuy topp weer da nga xam loolu danga dem ba war a séntu aw weer weer yi ne dàng fii te mënu ci dara nga dem ba war a jeexal aw weer doo gis dara nga dem ba war a gisu weer weer yi ne nekkuma fi kon yonent bi doon jàngale gis-gisu moom xam nga te itam xadis bi yenn sallam jàngale foofu dafa am solo lool mooy fi in quma aleykum wala boog fi mu wax ne fa in kaana doonu wala boog fi mu wax ne faqdiroo gis nga niir wii ak maanaam ak niir wii nga xam dafay am day lekk fi in kaana doonu xayaabatan ak fa in quma mooy bu fekkee dafa am poussière wala asamaan dafa taq wala niir yi dafa bari loolu ñoo doxin weer tabeexa weer ñoo ànd saa bu ko defee rek yow mi xam weer wi da ngay gis ne boo demee ba ci kanam da ndax léeg weer wi nekk fi ci wàllu astronome saxal ne weer waa ngi fi jant ko sowee 40 minutes weer wi am na leeraay pour cent weer wi euh, sori na kaw 9 degré ba noppi awul niir ñëw na fi dàng lu waa sunu borom dafa gën a wóor saa bu amee rek. foofu la xam-xamu nit waaye la tax xiin wa ne fa dàng wala la tax asamaan sa lëndëm daa am lu muy réglé ci weer wi ca kanam loo tamit day am ñu ñu topp weer xam nañ loolu kon loolu yonte bi jàngalu ko rek ci noonu bokk na ci ñu signé bayaan boobu ba tey docteur Siyaad Allawi baaxisun falaki kuliyatul andasa jaamiat Baxdaad fële ca Irak ci université ba nekk foofu docteur Sofiane moom tamit nekk di njiit ci kuréel gii nga xam ne moo nekk fële ca Tunisie du yëngu ci wàllu astronome oustaz Salih Saab moom moo nekk wis bi nga xam ne moo jiite centre inter euh, centre fële bi nekk fële ca euh, dëkk bi ñu tudde euh, madinat malik abdullahi al asi abdul asis lil xulum wa tiqniya al saoudiya moom moo jiite foofa us dafay jàngale ci ña fay jàngale la bokk oustaz docteur Sabia moom tamit jàngalekat la buy jëm ci wàllu jaww ji ak wàllu fëlëg ak nekk expert ci wàllu astronome fële ca sultana Oman oustaz Hadil Sahdoun waxoon naa ko se sànq raisu jamihatul falakiya al kuwaitiya moom moo nekk président kuréel gi ëmb wàllu astronomie fële ca Koweït bokk rek ñi ko signé oustaz docteur Abdul Khaliq Sadadi moom tamit jàngalekat la ci wàllu fëlëg ci benn école bu nekk fa dañuy tuddee al muhammadiya ca euh, euh, Maroc kon ma ñëw ci wàllu kori kori wi samedi bi nga xam ne moom la ñu wori nga ne samedi na dimanche muy ñaareel fanam mooy doon benn fan ci weeru diggu tabaski nga delluwaat ca calcul benn fanu koor ga mu doonoon alxames alxames juma gaaw dimanche di ñeenteelu fanu weeru koor mooy doon benn fan ci ñetteelu weer te ñetteelu fanu weeru koor ñetteelu weer ci weeru koor mooy diggu tabaski ndax boo nee koor ne koor yi ne diggu foofu la nga ñëw nag ci benn fanu diggu tabaski woowu di dimaas nga ne altane ne talaata di ñetteelu ci weeru diggu tabaski moo lay jox benn fan ci weeru tabaski foofu gis nga weer yu ni mu dàmmoo ndax fàttaliku leen bu baax ne dimanche maanaam samedi samedi dimanche altine talaata loolu ci la waroon a tàmbali mais du ci tàmbali weer dafa damm foofu dafa dugg annière ndax bi ne dimanche ne altine ne talaata ne àllarba nga xam ne àllarba moo doon ñeenteelu fanu kori war doon benn fan ci ñetteelu weer wi ñetteelu weer wii di tabaski day damm foofu weeru tabaski day annière ñëw tàmbali altane nga xam ne kon altane bi nga xam ne mooy ñetteelu fan man ñëw tàmbali talaata talaata ji nga xam ne mooy ñetteelu fan ci weeru diggu tabaski mooy doon benn fanu tabaski ñii rek la tëdde euh, ñu tàmbali weeru tabaski tabaski bi nga xam ne mooy benn fanu talaata talaata àllarba alxames kon alxames la ñuy tëbale benn noonu la tëddee talaata jooju nga xam ne mooy benn fan ci weeru diggu tabaski nga ne talaata ne àllarba ne alxames ne ajjuma ajjuma boobu mooy doon benn fan weeru màggal benn fan ci weeru màggal nga xam ne kon. Euh, talaata àllarba alxames ajjuma mooy doon benn fan ci ñetteelu weer wi topp ci weeru tabaski te mooy màggal kon benn fanu màggal ajjuma la bisu màggal di dimaas loolu boo ko xoolee la 4 septembre lay tombeel altin le 4 septembre léegi àllarba ji nga xam ne mooy ñaareel fanu tabaski wi àllarba ji nga xam ne mooy ñaareelu fanu tabaski bi alal jooju mooy doon benn fan ci weeru tamxarit nii rek la tëdde at maa ngi noonu euh, ma desewaat ba ci beneen information mooy ci wàllu weer wi xam nga Arabie Saoudite gox yi doon séentoo weer wi yëpp dañ koo gisut ñu ne benn gox lañ ko gis muy fële nga xam ne Mouhamad Khoudari yi fa la nekk mu ñaari barab yooyu ci xoota ak tumiir boobu mais dafa am lu garaaw ndax ñoom foofu biñ ne bi ñu wax ne gis nañu weer yi booba jant bi soo soogut waaw ndax six mooy dix ci ngoon dix-huit heures quinze ne gis nañu weer wi te foofu jant baa fa waroon a so lu mu gàtt gàtt gàtt dix-huit heures vingt loolu tey mënta nekk kon ñoom dañoo wax ne gis nañu weer wi avant jant bi so weeru toll ci situation bi mel nii nga xam ne boobu jant bi nu sa mëne su koo gis daanaka ba noppi jant bi soowul ak leeraayam nga ne gis nga weer wi kon am na ay preuve ndax Mouhamad Al Khoudary mi 2007 dafa amoon problème ak waa Saxoodiya ndax booba waa Saxoodiya dañoo déclaré woon ci wàllu weer wi moom mu gàntal ko moom mu gàntal ko ne weer wi mënta feeñ dimanche joojee bañ ci jugee nag nga xam ne comme ñoom niñ mënee xupp si boo boo dee borom xam boo waxee lu wuuteeg li waa uh, maxkamal xiliya ak waa famille royale bi dañ lay xupp ca la dellu ginnaaw boobu ba léegi nga xam ne leneen lu ñeneen wax moom da koy dàq ànd ak moo tax bu booba ba fii may waxee yéen wépp weer wuñ ne feeñ soxna rek moom fam nekk la feeña fam nekk 2007 ba fii may waxee yéen wépp weer wu ne feeña soxna de ci appareil Mouhamed Khoudiri mii moo ko génne ci barab bee mu nekk muy Tumir ak Sudayr loolu jar bàyyi xel la kon tey ñoom bi ñu wax ne gis nañu weer wi di 6 heures 15 jant ba soogu fa te soo jant baa ngi fa mooy 6 heures 22 loolu tamit am na fa. xam nga boo seetloo 2007 dimanche jooju nga xam ne moom la Arabie Saoudite doon séntu weer wi muy 9 décembre 2007 Mohamed Al Khoudary mi moo waxoon ne weer wi kenn mënu koo gis alterné sax léerut damaa jëlee dimanche. Arabie Saoudite comme booba ñu ngi seen politique bi ñu politique ci aj màkk gi wax ne gis nañu weer wi ci dimanche ci laa réew yëpp ànd ak moom ci loolu comme moo organisé aj gi ah comme dimanche sañ ko gis nag kon altine moo doon seen benn fan tabaski talaata di seen xarafa ndax bu altine bu altine desee talaata muy juróom-ñeenti fan seen xarafa ñu tabaski àllarba ñoom waxaa bi si ibaar yu nekkoon Sénégal ànd ak ci loolu altine jooje nga xam moo doon suñu séntu bu njëkk nun ñun ñu ne gisuñu ko ñun murid yi ñeneen ñi ne ci réew mi ne gis nañ ko ñoom da daa tàmbali altane àllarba seen xarafa ñoom ñu tabaski alxames ñun bu ñu ko gisul altane ñu tàmbali benn fanu àllarba tabaski ajjuma yàlla mi dara tawut ba ñu delluwaatee ci xam-xam gis ne wee uh, bu dee ci Arabie Saoudite dimanche joojee weeri sono vingt trois minutes vingt cinq minutes jant bi door a so am na bataaxal yu ñu bindoon yoo xam ne doon nañ ko jàllale ci réew yi la même chose Koweït ak réew yu baree bari mais Sénégal bi mu accès fii information yi kenn jàllale wu ko Walfadjri moo ci wax tuuti rek te Sidy Lamine Niass affaire ba jeex kenn amu ci problème Sidy Lamine Niass ak Dator Gueye ak Iliman euh, Iliman euh, nu tuuti Tamsir euh, Ndiaye mi nekkoon université jiite Alfalaax njublankat bu mag boobu ñoo ñoo ñoo ñoo fa newoon doon débat ci loolu te lii xew na nga xam ne boobu bañ ko seetee ñi tabaski àjjuma rek ñoom ñoo togg ñoo tegee ci raay bi maanaam li weer wi di wax xam nga li war a xam mooy mag suñ kilifa yi dañoo jàng histoire jàng nañu weer wi xam nañ ko bu wér moo tax loolu kenn wuru ci dugal ay caaxaan ndax boo seetee 1980 ba léegi saa bu weer wi amee problème saa buñ ko delloo ci xam-xam rek Sénégal lay ne ci dëgg Sénégal murid yi ne ci dëgg mu leer nañ ci wàllu weer wi nag laay wax léegi nag alxames jii nga xam ne moom la réewi arab yi di séentu weer wi li tax boroom xam-xam yi xam ne weer yi mënee su koo gis dafa am loo xam ne astronome yëpp dañ ci dëppoo ci nattukaay boo demee fu mel ni Imaratul Arabiya foofa bu jant bay so weer wi quatre degré lay am bu dee màkk cinq degré lay am bu dee fële ca Filistin cinq degré bu dee ci Égypte cinq degré senegal képp lay am huit degré te senegal googu yi la wax ne ku yor télescope yii mën naa am nga gis ko te yii moom. boo yor machine yeneen yi ci des nga xam ne moom la Mouhamed Khoudary mii mee yor branché ko ci ordinateur tag ko ci internet bi <laughs> lool kay ku ne man na ko man mii bépp bis mën naa génne weer xam fi ne mën naa ko foto génne ko foto ko man saa jëm bopp man sama appareil bopp rek mën naa cee lijjanti bi génne weer yi foto ko wane ko comme noonu ñuy def noonu ah ginnaaw ñoom ci loolu la ñuy saxale weer aaje na ñi ci sukkandiku ñu xam loolu weer yu nag pour nga xam ko da nga koy topp am na ci ñaari tënk yoo xam ne dara du ko dindi tënk yooyu mooy weer ñaar rek maanaam ñaareelu fan weer wu nekk di benn fan weer wa ca topp wala ñetteelu fan weer wu ne di benn fan wa ca topp wa ilaa boog ñeenteelu fan weer wu nekk mooy benneelu fan ci ñetteelu weer wa wala wala juróomeelu fan weer wu nekk juróom boobu mooy doon la bis ba di doon déwén lii nag la weer wi doxe weer wi dana damm ci ñetti weer dana damm ci juróom benn weer rek la mën a damm ñett ñett foo ko fekk damm ci ñetti weer ba juróom benn weer loolu na la mën a deme bu ñu xoolee bi ñuy tàmbali ak mi weesu di dimaas di benn fanu tam xarit dimaas boobu mooy benn fan altine mooy ñaareel fanu tamxarit ñaareel fanu tamxarit ba moo nekk benn fanu safar di altine ndax altine moo nekk ñaareel fanu tamxarit waaye mooy doon moo doon tamit benn fanu màggal benn fanu boobu di dimanche nga altine talaata àllarba moo doon benn fanu weeru gàmmu di àllarba altine moo doon benn fanu màggal nga ne talaata ne àllarba di ñetteel fanu màggal du ba tey doon benn fanu gàmmu benn fanu gonu àllarba la ne àllarba ne alxames ne ajuma na gaawu mu jox la eh, eh, rakki gàmmu rakkaati gàmmu bi benn fanu gàmmu di àllarba alxames di ñaareel fan ba alxames boobu moo nekk benn fanu rakki gàmmu benn fanu rakki gàmm boobu di alxames nga ne ajjuma ne gaaw ñetteel fan mu joxaala même benn fan ci rakkaati gàmm benn fan ci rakkaati euh, gàmm di gaaw boobu gaawu dimaas alterné di ñetti fan mu jox la benn fan ci ndayi muy kazu rajab gaaw boobu di benn fan ci rakkaati gàmmu gaawu dimaas altane talaata moo doon benn fanu kastro yëpp mais weer dafa damm loolu lañ tuddee damm damm mu damm foofu mu daal di dugg ci weeru weeru ci des au mu tàmbalee talaata mu tàmbali altane ndax su dammoo fee du damm ci bii ndax bi ngi ne gaawu ne dimanche ne altane mu doon benn fanu weeru kastro jàpp te day mel ne boo tàmbaloon ca samedi ja na samedi nga xam ne ñetteelu fanu rakkaati gàmmu moo doon benn fanu kasu rajab te boo tablaatee ci weer wi nekk gaawu dimanche altine talaata moo doon ñeenti fan nga xam ne li waxoon sànq ne ñeenteel fan woo gis rakkaati gàmmu maamu koor nday koor moo doon benn fan ci ñeenteelu weer wa foofu la weer yu dammoo dafa damm fii te du damm ci limbee ba tey noonu la weer yuy doxe benn fanu dimanche boobu nga xam ne mooy euh, maamu koor dimanche altane ñaareel fanu ñaareel fanu maamu koor moo doon benn fan ci ndeyu koor benn fan ci ndeyu koor muy altane altane talaata àllarba ñetteel fan boobu di àllarba moo doon benn fanu baraxlu ñeenteel fan boobu ci kazu rajab moo doon benn fanu koor voilà dimaas ba nga xam ne moo doon benn fan ca maamu koor wa dimaas altine talaata àllarba ñeenteelu fan boobu moo doon benn fan ci weeru balaxlu wi nga xam ne mooy ñetteelu weeram ñu daal dugg na ci koor gi benn fanu kasu bi doon altine talaata àllarba alxames di ñeenteelu fanam mooy doon benn fanu ci ñetteelu weeram muy koor gi ñu woor alxames alxames ajjuma gaaw di ñetteelu fan ci koor gi mooy doon benn fanu koor benn fanu koor yi alxames ajjuma gaaw waaw nii rek la tëdde amul la neen benn fan bi doon doonoon ca baraxlu muy àllarba àllarba alxames ajjuma gaaw gaaw di ñeenteel fan ci baraxlu moo doon benn fan ci ñetteelu weeru baraxlu te mooy weeru kor wii ñu jëm muy sawaal gis nga lii ku yaakaar ne mën na koo dindi weer yi amul na ne nu mën doxee nunu nii ñaar damm-damm yi du maase damboonoo su damboonoo ci ñeenteelu fanam du damm ci ñetteelu fanam wala mu damm ci ñaareelu fanam weer yu nit la tëdde waaw xam naa maa ngi jégalu li ma ci doole mooy Sénégal bu munta gis aw weer ak bët nga xam ne aw xiin waralu ko wala wala asmaan su taq nga xam ne mun koo gis ak bët amul benn réew bu ko mën a gis ak bët Sénégal bu mun a gis ak bët ci ni xam-xam di jàngale ci wàllu astronome amul benn réew ci àddina bu ko mën a gis ci xam ci wàllu astronome loolu tamit lu wér la te boroom xam-xam yépp ci wàllu astronome mën nañ ko justifier waaw mën nañ ko dëggal kon Sénégal àdduna bépp ci moom la ñu sukkandiku ci wàllu weer moom la war a sukkandiku waaye moom war a sukkandiku ci kenn. ndax amul benn dëkk bu ay nit nekk ci àddina bu féete Sénégal ci soowu deret te bu fi weer wii so fii weer yi buy toll fii ci midi jëm sawaal lay fenk Amérique te Amérique weer yi da koo ndeyjoor Sénégal dafa nekk ci xatul istiwa ba nag mujj ci mujjukaay bi moo tax mboolem astronomie yëpp xam nañu loolu loolu dama dolli ko ci weer bu soowee fii Sénégal amul benn dëkk boo xam ne bu fay sowaat dafay soowee ni muy soowee Sénégal ci diggu soow bi déedéet waaw loolu tamit lu leer la ndax buñ ne amerique ci côté Caraïbes yi Caraïbes yi foofu ci géej gi lañ jubloo wax waxuñ ci yem ñu dëkk ba fa nit ña te foofu ci ci ndox mi boo ko nattee moog dakaar point waaw kon Sénégal moom ci wàllu moo tax tamit même boo xoolee ci wàllu jant bi li fi jant bi lakk ci énergie lakk ko ci benn réew ci àdduna Sénégal képp moo am huit heures neuf de temps yu mat sëkk amul benn réew bu ko amaat loolu nag yàlla ko def te ñii gëstu ci wax xam-xam xam nañ ko. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Mourou Assoure ngi lay nuyu di la ziyaarte di la jaajëfal waxtaan wi am solo wax dëgg yàlla indi nga ay leeral yu am am solo ndax wax dëgg yàlla bi ñuy commencé rek leeral nga at mi bañ commencé ba tey fi mu toll ba fii ñu toll tey jii nii leeral nga ñaata fan lañ am tey mu toll ci deux cent soixante quatre jours leeral nga ko leeral nga tamit ni weer wi kenn mënu koo gis ak bët ci machine rek lañ ko mën a gise leeral nga tamit ni ñàkk gis googu boroom xam-xam yi nga xamante ni ñoo ko tëral yépp ñu ngi toll ci ñaar fukki boroom xam-xam ak juróom-ñett wax nga ni tamit weer ngir ñu gis ko maanaam dafa am ci xam-xam bu muy tege kon buñ ko dee gis kenn mënu koo gis ci bët waaye ci appareil rek lañ ko mën a gis te appareil yooyu fi ñu ko mën a gisee rek mooy Sénégal te Sénégal tamit faw am xeetu appareil bi nga xamante ni moom la Arabie Saoudi am naka noonu tamit leeral nga waa Arabie Saoudi ñoom fi ko mën a gisee ak ka ko fa gis ka ko fa gis kenn la koo xamante ni ku bari woon la ki ñuy wax Mohamed Soudayri moom moo déclaré ne gis na weer wi ca Tumayra ak Xuut kon loolu li muy tegtale moom mel ne xëy na dafa bari woon ci yëfam ñu bëgg nuñ ko récupérer waate mu déclaré ni gis nañ weer wi ñoom ñu ànd ak moom ngir maanaam séparé gi mu séparé woon ak maxkama oliya ba nga xamante ni moom moo ne ci dëkk ba waaye naka noonu tamit leeral nga yenn dog-dog yi nga xamante ni dafay am ci weer yi kon loolu li ciy tegtal rek mooy weer wi lu matti topp la saa su nekk waaye nga daanee daaneele ko tamit njuumte yi nga xamante ni moom la moom la ñuy def ci weer wi rawatina ci yenn dëkk yi ñi koy déclarer saa su nekk nga mujje nag ci ni maanaam weer wi buñ ko doon gis ci Sénégal rek lañ ko mën a gisee te kenn mënu koo gis ak bët waaye naka tamit Sénégal rek ñoom ñoo war a wax ni mën a wax ni gis nañ weer wi ñu mën a sukkandiku ci ñoom waaye kenn mënta sukkandiku ci ñoom kon ñun waruñoo sukkandiku ci kenn ngir li ñu am ci leeraay ngir mën a gis weer wi keneen mënu koo am kon sëñ Modou Asta ñoo ngi lay sant ci turu Abdou Serigne Abdou Samad di la sant bu baax a baax ci xam-xam bu leer bu am solo bi ndax xam-xam moom bokkut ak lu dul xam-xam kenn du ko lijjanti du ay tappale waaye xam-xam bu leer la te ku dégg ni ngay wax rek di nga xam ne lii ngi moom xam-xam bu leer naan nañ ñi nga ci am kon ñoo ngi lay sant di la gërëm ci turu sëñ Abdou Samad di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla defal ñu dégg ak topp fan ñu mujj ñu ñëpp lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko suñu borom subhaanahu wa taala nangul ci barkeb Cheikhul Khadim kon su ko defee Serigne Samb kàddu gi mu ngi noonu jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaar xam naa tënk bu gàtt ma ci def rek bala maa tëj ginnaaw leen sante siyaar bu baax siyaar Cheikh Abdou Samad mooy weer wi pour bët mën koo gis ci situation yooyu la tënku mooy dafay fekk mu am ci leeraay zéro virgule quatre vingt ba un pour cent ba noppi am sept degré ci fi mu nekk ci jaww ji ak suuf ak fi mu war a so am neuf degré diggante ma jant bi jant bi njëkk koo sowe trente minutes ba trente cinq minutes lu mu gàtt gàtt mu am ci jaww ji dix-huit de temps mooy fi fi muy juddoo ak fi ñu koy séntoo dix-huit de temps vingt de temps vingt-deux heures de temps lii mooy li bët mën a gis bu fekkee xiinut niir te bu xiinee niir tamit bët ak ñoo ci yem télescope tamit mënut a gis ci aw xiin bu fekkee télescope naturel la wala maanaam surnaturel wala miqrab mënuñoo gis ci aw xiin wala mu niir assance fi ni bu xiinee télescope te newu la ci lu dul télescope boo xam ne dañ ko branché mooy CCD yooyu ci appareil ci ci internet bi ci satellite nga xam ne waaye satellite bi lañuy xool waaye xooluñu asamaan si foofu rek moom mais bu dee aw xii nag asamaan tu taq moom appareil bëtt ci yem léegi appareil tamit day am lu ñuy mën a gis ci weer wi ak lu mënta gis bu dee appareil naturel appareil lana mën a gis mooy boo xamee ne jant bi njëkk naa soo weer wi lu gàtt-gàtt vingt minutes te fekk na weer wi am na ci ay degré lu mat six jàpp set na fekk ne weer am na ci jaww ji lu ma ne fukki waxtu ñeent wala fukki waxtu ñett loolu moom appareil yi ñu ko yor bu fekkente xereñ nañu te yàgg te mën nañ seen liggéey appareil boo xam ne branché wuñ ko fenn nga xam ne te dafa nekk télescope nii rek ndax xoolukaay yi dafa bari ay façon manasir yi mooy lépp loo xool nga xam ne dafa lay xëccal lu sori woon comme lungoor yi ñu yor fii nga xam ne da ngay xool lu 500 mètres wala 1 kilomètre mu xëccal la ko demee ay centimètres wala muy mu xëccal la 500 mètres muy cent mètres un kilomètre mu defale ko deux cent mètres xam nga loolu longueur da koy def am na mën naa si gën a kawe mu leen daan tuddi naqaraab ci ay jamono ñu dem ba yàgg ñu liggéey télescope moo gën a foor yooyu nga xam ne boo doon xool sa bët télescope yooyu lim lay wan ci lim lay wan nii nga xam ne lépp lépp lu mu la wan ne la un centimètre la xamal ne maanaam fukki junni centimètre la lu mu lay wan ne la un kilomètre la xamal ne junni kilomètre la xëcc nga xam ne bu ñu ko branché fenn bu fekkee dañ ko branché fenn nag kooku mu waxumu ko léegi weeru taw yi ni mu demee nii bu fekk dañ ne bu dee télescope kase la nga xam ne raxul dara télescope képp rek bu ñu samp ne nga xam ne man mën naa ko am ne mën na ko am nga xam ne branché wuñ ko ci genn fiil nekku ci sa sa satellite buñ ci mënee gis weeru Sénégal la bu dee nag li ñuy tuddee euh, LCCD caméra nga xam ne moom la Mouhamad al Khudayri yi ma a yor fële ca ara ca xoota wala Chudayr euh, euh, Tumir appareil yooyu dañ koy branché mooy niveau technologie bi nga xam ne moom mujj génn kooku waxtu wu nekk man wees na sama bopp sama appareil bopp bii ma yor satellite bi ma ci monté amul benn bis ba ma mënta xam fu weer bi nekk te mën naa ko ci génne ba mu ñëw ci écran bi ma foto ko te su ma ko branché woon ci machine ordinateur def ko ni ko def ñoom. kon loolu moom taxul ñuy wax loolu moom ay tappale la waaye télescope kese laa wax la borom xam-xam yi saxal ne bu fekkee am na fi mu ko mën a gisee Sénégal la moom Arabie Saoudite nag gisuñ ko fa télescope naturel déedéet LCCD caméra mooy CCD yooyu lañ ko fa gisee nga xam dañ koy branché ci ordinateur di ko régler def ko ci satellite bi topp asamaan si jaww ji mun na ko nga xam ne man sama appareil fi mu toll nii rek fi ma fi may waxee yow nii sama pare bi ma yor sama beneen loxo bi maa ngi gis weer yi mën naa ko foto wan ko ñëpp. <laughs> pour wan la yooyu ay tappale la et puis moo tax ñoom tamit bi ñu déclaré na gis nañu weer wi booba jant ba sowagul foofa 6 heures 9 te 6 6 heures 15 te 6 heures 22 la fa jant ba so loolu tamit lu mat a bàyyi xel la alxureeri mi dafa bokkoon ci naroon a contre en 2007 moom moo moo contrôle bi Arabie Saoudite ne weer wi feeñ na dimanche mu contre ginnaaw bi la ko gars yi wax ak moom nag jël ko léegi mu bokk ñoom moo tax la tàmbalee 2007 ba fii ma waxee ngeen amul benn dëkk ci Arabie Saoudite wala benn gox fu ñu fone weer yu feeñ wala ñu saxal weer ci lu goxam boobu at yi yëpp nag kum neex mën ngaa vérifier nga xool saa bu nee maxkamul xulya boo toppee xibaar bi ca euh, tumayir boobu lay dellu fa Abdoulaye moom alxudari yi nekk waaw te am na yeneen borom xam-xam yu ko ëpp xam-xam foofu nekk ci biir réew doo leen dégg mooy ñi bokk ci signature yi yëpp moo wax loolu tam kon lu bàyyi xel la kon télescope bu kase télescope bu kase li muy mën a gis mooy na fekk na weer wi am na ci jaww ji lépp fukki waxtu ñett am na ci leeraay lu mu gàtt gàtt quatre vingt sero virgule quatre vingt jant bi njëkk na ko sooyul mat vingt mille wala jëm noonu waaw lu mu néew ko waaye loo xamee ne cinq comme tey la nga xam ne cinq degré ci bu dee ci réew arab yëpp gën ngaa bari cinq degré cinq degré ak leeraayam mu ngi ci zéro virgule trente jàpp quarante kooku télescope kese mënu koo gis fokk nga am eh, eh, appareil boobu moo tax ñoom ci bëccëg ba léegi. ñu ngi leen doon soññe pour ñu nañ ko gëstoo appareil boobu man am naa ci document leer nañ ko gëstoo appareil boobu te moom nañ ko gëstoo tamit réewu arab yi ànd yëpp dañ publier ne gis nañu weer tamit dañoo sukkandiku ci Saxoodiya waaye ñoom tamit seen gox yooyu kenn gisu fa aw weer muy Égypte muy Algérie muy Tunisie muy Ordon muy Turc Turc sa ñoom alxisaabul fële ki la ñoom ndax ñoom amuñu problème boobu. te Turquie moom am na fanweeri réew yu bootu ci ginnaawam te ci ñoom ñoom ñëpp ci moom lañu sukkandiku te moom moom amul problème mu weer xisaabul falaki dong la yor Indonésie léeg-léeg ñu sukkandiku ci xisaabul falaki léeg-léeg sukkandiku ci weer Australie dañoo sukkandiku ñoom samedi dañuy wari dañoo sukkandiku ci xisaabul falaki ndax ñoom seen bañ xamee ne weer yi amul ci benn condition bu mën a feeñ rek lañ jël seen décision ñoom Libi wax fa sunni bi nekk Irak te topp wahabiste yi nga xam fa ànd ak Arabie Saoudite ba tey doon sukkandiku ci Arabie Saoudite réew yi ko wax yépp na suba la ñu woor yi kenn ku gis weeri foofu ak bët amul kenn ku gis ak benn appareil amul ñoom ñëpp dañoo tënku ci ndax Imaaraat fa la jant bay njëkk a sooyoo waxtu ñoom ñoo njëkk a séntu weer yi ba am waxtu Arabie Saoudite ñoom ba ñu séntoo joxuñ benn décret parce que gisuñ dara dañoo bàyyi ba Arabie joxe seen seen interview yi ñu waat ci ñoom tamit joxe ko bañ joxee Qatar dégg ko joxe seen interview ordon dégg ko joxe Égypte joxe Libi joxe Palestine joxe ñëpp joxe ki nekk Sénégal te xamul nag da yàpp ne réew yooyu yëpp dañ commencé séentu waaye ñi ci war a ñëpp benn gox boobu ci ci tey appareil boobu la tege appareil boobu la tege ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp xam naa fii lañ ci yemande incha allah bu fekkee amul ay laaj ci wala am na tamit réew yoo xam ne tamit ñoom samedi la ñu wari am na ci ay réew yoo xam ne ñoom samedi la ñu wari nga xam ne ñoom bokkuñu lenn ci réew yu naar yi ñoom dañuy topp li sunna di jàngale Euh, foofoo mu mooy fu mel ni Indonésie Malaysia Zaltana Oman Baranawi ak jullit ñi nekk fële ca Australie Thaïlande Ziguinchor Japon ak Iran ba ci Pakistan Afghanistan waaw ma ma leeral foofu tamit ne gis nga saltana Oman mooy réewum arab mi gën a sori ci penku bi Maroc mooy réewum arab mi gën a sori ci sow bi te ñoom ñaar yi saa boo leen nattee ak Sénégal ñooy tolloo mosuñu am jumte ci wàllu weer wi ci niñ koy séntoo ndax ñoom li astronome jàngal dañ koy jël waaye nag dañ koy teg nag ci njàngaleen sharia mooy lan gis ak bët yee dañ koy dimbali ko rek xam fu weer nekk xam fan la toll bët mën koo gis wala mel noonu mais saltana Oman ak Maroc lañ wax ne mosuñoo am jumte ci wàllu weer kii mooy réew mi gën a sori ci penku kii mooy réew mi gën a sori ci sowu Sénégal mu jot ci sowu bi kon Sénégal waxalisatu ko boroom xam-xam yi nga xam ne tënk nañ njuumte yi nga xam ne moom la réew yu mag def ci wàllu wi yooyu dafa bëri mun mu koo tudd ci wàllu weer wi nga xam ñi ko def ñëpp kenn ki Arabie Saoudite la dëkk kenn ki Ordon kenn ki euh, Algérie kenn ki Émirats Arabes yooyu ñëpp dajale nañ dajale nañ njuumte yi nga xam ne moo am dama ci tudd benn rek bu dee fi mel ni Arabie Saoudite bi ñu xoolee ñeent fukk ak juróom benn yii yim annoncé weer yëpp moo xam weeru koor la moo xam weeru koor moo xam weeru tabaski bi ñu ko xaymaa ba mu toll ci ñeent fukki at juróom ñu natt ko ci la xam-xam di jàngale juróom benn yi képp moo ci dëppoo moom ñeen fukki yëpp da koo mooy nga xam ne bi ñuy saxal weer yi fekk na weeru nekku fa mu tëdd nii ñi ngi siyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex di ko sàkku ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Euh, ba ca desaan mooy lii euh, mooy xam-xam dañ koy wax jàngale ko suñ ko waxee ne xam-xam ak nii ba noppi nag nit ku nekk daa am ku la tënk ginnaaw am na ñoo xam ne ay naar doo nga leen doy ñuy sol tuba yu gàtt ak mbaxana di noos seen àdduna moo leen doy ñun bu ñu amee ku mel ne sëñ Tuubaa mu nekk fii nga maa ko dem ca barab ba ab xalifaam nekk fii kooku moo ñu gënal ci kaw suuf ñëpp dañuy jàngale xam-xam gaa waaye bu noonu bu leen woor duñ woor wori leen ñu wori man boobu ànd ak yëpp dama ko jàngale rek ngir nit ñi xam ne senegal xam-xam fi buñ mën a jariñoo senegal ma jàngale man mooy ban réew fan la ko yàlla placé lan la am ci weer jant bi may jàngale woon ngeen jàngale ko waaye ànd loolu bu noppee dañuy toog ngeen xaar ndigal li ndax kenn mënut a ñàkk kilifa amul kenn ku ku la waaye mën a wax am na ko ñu ne suñ man nag suñ kilifa gi mooy mu gënal mbooleem lu nekk ci digg diggante asamaan suuf ànd ak lii lépp dañ koy jàngale rek waaye su ngoon jotoon sëñ bi ne ma weer feeñ na ma ma génn def vidéo ba suba feeñ na loolu moom amu ci sik sàkk moom ndax lu dul yàlla rek suñ tubaab moo gënal waaw su ngoonoon sëñ mu taxaa joxe ndigal ne weer feeñ na man nañ joxe ndigal ne feeñ na rek li li ci xam-xam jàngaloon lépp mu bugg ko te ko ne waaw dañ koy jàngale nag ngir delloo nit ñi ci xam-xam xam-xam boobu tamit nañ ñu ngi ko nàmpe ci biir yoon wi di ko jàngale ngir ñu xam ne xam-xam mi ngi fi ne fees dell buñ ko jàngalee ba noppi nag da sëñ Saali waxoon ba waa ji ñëwee ne ko gis nañ weer yi mu xool gis ko mu ne waaw nañ toog xaar ndigal li gis nañ Abdou Lahad Mbàkke loolu mooy li wér nañ toog xaar ndigal li loolu am kon ànd gi yëpp tamit parce que ñi ngi kuréel yi ngi seen yëpp dañuy tënk ci ay ndigal ñi ngi tënk ci Arabie Saoudite ñi tënk feneen ñi tënk feneen ñi tënk feneen di xaar ay ndigal pour ñu mën a woor wala ñu mën a woori Sénégal tey fi ne am na ñoo xam ne guddi gi ñu ngi tàmbalee wootante téléphone pour war a woori suba pour lan seeni sëriñ wari nañ kon kenn am ñëpp am kilifa ñu ne alhamdulilah bañ amee kilifa gu mel ni yoonu mel ni yoonu mu rek am kilifa mel ni yi ci nekk ñu doon ñu sëkk ci wet yëpp ci xam-xam doon ñu sëkk te doy ba doy neex na doy la ci gën waaw te ñoom doy nañu ci yàlla te ñooñu gënal kilifa yëpp kon yii yëpp dañ koy jàngale nii rek pour yee nit ñi pour xamal nit ñi buñ paree nag toog xaar ndigal li xam nga li xamal ne ay tappale am na ci weer yi daaw daaw ca kori wa Italie dañoo woo seen astronomie yëpp ak képp ku leen mën dimbali ci télescope te booba daaw weer wi te ñoom bañ koy séntu mi ngi woon ci zéro virgule quatre-vingt-treize jëm kaw te booba amoon na lu mat sept degré daanaka waaye dafa leerutoon jant bi njëkk koo sowee vingt minutes seen appareil yëpp yu dëpp ko ci jaww gisuñu ko kon wallu apparee xeet yooyu moom étape la ñoom lañ ci def waaye bu dee loolu tubaab yi dañ ko dàq te tubaab yi leneen ñu bëgg gis weer wi duñ ko mën a gis ci bu toll ci yi del xool na fi ne du benn du Italie du Amérique du France kenn ci tubaab yi ku mën a wax génn weer ci télescope te ñoo ndax daa appelé matériel yooyu kon foofu tamit am na benn tappale bu fi ne. ah sang si ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara baax di leen jaajëfal di nuyu Cheikh Moustapha Mbacké mii ak soxna sëñ euh, sëñ May mii ak sëñ directeur xam naa damaa xamul tuuti numéro bi rek laa gis 286 40 93 di leen siyaare baax. di am mbégte lool ci ànd ngeen ànd ngeen jotaay bi tamit waaw moom sax xaj na